dëggin bu mu dëggu tànkam rek am na lu muy yéene loo xam ne bu ñu ci bàyyi xel duñu surux ci wàll bu mu féete mm-hmm. wàllu bu mu féete mm-hmm. am na ci taxawaay goo xam ne ku jara bàyyi xel a ngi noonu waaye moment bi coow li dafa bari te ñuy réer dafa bari soxna Aida nag ay waxam mooy Wally Seck ku bëgg a gis soirée bu neex soirée boo xam ne kenn dootu ko fàtteeti ci àdduna nanga nga préparer la douse la 12 nekk na bis boo xamante ne ni sarax yi ma leen ci waxoon ah nañ ko génne kuy yaay génneel ko ñett ndabi laaxu sarax kuy yaay te bëgg Wally Seck te xam ne am nga cofeel ci moom tey yaay génneel ñetti boolu laax jour le douze man de naa ko def man soxna Aida te xam naa Sénégal ñu koy def dinañ bëri képp koo xam ne bokk nga ci Wally Seck di góor ci estafam génneel juróom-ñaari sachet ndox képp kuy liggéey ci média di liggéey ci wax mhm. ak micro jamono ji ñu toll waxoon naa leen ko ci ay weer yu génn ni leen nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi nañ ñu dimbali képp kuy liggéey ci wax na nga génne ñaari kilo suukar wala ñaari kilo xorom ma di leen ko ñaanaat kuy liggéey ci média ki nga xam ne mooy directeur bay wàcc ci suuf muy bugaan gëy ak Youssou nduur ak ak El Hadj Ndiaye ak ku mu mënti doon génneen ñaari kilo suukar ba wàcc say élément ba wàcc ba kay fobeere ca biir kër ga na ko def du jàmmi Hallelujah, oh Hallelujah.